السلام عليكم ورحمة الله بكي نجل نيدي لين زيارة لين بالحق لين برم سبحانه وتعالى بولي نجل يدالي سيتي سنو دروس الحج ديمو بركي ديمو جانغون نانيو حجر الأسود وجاج بي بو دوغي بو نيو بو يور كابا جي دفوي فون ديمو جانغون نانيو نمو دوغي جي كابا جي تانك نا يورم لي جيت بو يجي جي ركن اليماني مولالكو bu ko mënul laal mu romb digganteem ak xajarul aswad mu jàng ñaan gi ñaan tey ñuy continuer ba tey ci programme boobu refee ujaaj bi bu dee wër kaaba gi na def ñaar yi mooy na feeñal mbagg ndey jooram ñaareel bi mooy ñaareel bi mooy ñetti wër yu yu nekk yu ñetti wër yu njëkk yi na ñukk ñukk maanaam buñ ko waxee mooy dox bu jege daw loolu lañuy tuddee ñukk ñukk maanaam kuy dox mel ne kuy daw mooy dox waaxu boobu nga xam ne dafay mel ni daw noonu lay wëree kaaba gi ci ñetti ñetti chawt yu njëkk yi ñetti wër yu njëkk yi day mel ne kuy daw maanaam dox bu rax daw ko defee li ci des mu dox ko comme ni mu baaxoo rek kon ñetti wër yu njëkk yi day dox dox bu xaw a rax daw waaxu bu tar defee ñeent yi ci des nag mu dox kom ni mu baaxoo di doxe noonu la ñuy defee tawaaf kon jàng nañu place yi ñuy fekk ci kaaba gi muy xajarul aswad ak ruknul yamani ak buy dox fu ko kaaba gi di féete ak buy dox nan lay doxee ci ñett yu njëkk yi ak ña ñeent yi mujj yi nu muy doxe ak bu solee armalam ndeyjoor bi mag ndeyjoor bi ba xam dafa war a feeñ foofu la ñuy teg suñu loxo incha allah mu ngi ñëw suba ñu mottali wal qawli hada wa astaghfirullah alazim li wa lakum wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh